andu i diŋolu he folo folo i diŋolu batata bari sañi alhamdulillahi rabbil alamin tento be man soyele andu mbajurundi alifaalu wol fana i bee bi jaŋ i man bula waati yo waati banjurundi alifaalu i b'a fo ko ala ka kadisa samba mata fo y'a jeme i naata ye medayo di nte la i murunta koto ke ye medayo dinna medaye saban jaŋo ye wo dinna ntaata maka alhamdulillah abebu nyimba njurunding alifalu isita dawo da alinga kadisa duwa min batini yaya sasamba maka andu ntema mfesi ya molti min bijang bari wakilo wali ya nyimbe sabu alama ala en dema ala en sutura dimbalu be min be koma alama ye yato ye kendiya ise gadino samba anyama alama banjurundin gadino alama kela nyato tati forgetolu fana min kanna alama niwoli ye nyomoyi horgetoɓe nakande ntol ɓanjuru ndi mbatatale ntol man faro soto ntol man gadino man gadino ngawole ke na faroti wala tina suta tili ntol ɓe ñingadino tol wala na ñinan contano boyta ntol kan musol ko na tiyo do ku jeme anu min bina ah. eh, wala ɓe siyala tiyoti ni ala sonta ya lon eh, baluwo hadamadiŋo la eh, sola mu min ti wolom chinoti yo ñino ka ñin do ko min ke jang ike wo kodole ta ke la baluwo ñin ka topoto woto wo kan woto gadino ñin a kumaya batale duniya faŋo be balu kan senole la kanta ye feŋo feŋ je doron nin keme mu mosa fono doron ko tan kononto be senole ka bondi ka hani borol faŋol e ka bo yirol le bala e ka bo a be mu woleti doron ha woto gadino nin seno a kumayata bakele <laughs> ɗo kay sina mene welti hannde no welti ɗo ha moƴƴi tan minen ɗo minen rewɓe on ɓe ɓen ɗo minen wakkili ha moƴƴi golle amen ɗen ko bolle ɗen minen naɓude ɗe ha no foti yarude ɗo ɓerɗe goote ko ɗum min jokki ɗo kala ko président amen on wii ko ɗum min waɗata ɓawoɓe ɓen ko wiɓen fof ɓawoɓe ɓen kala so wimen hannde dawren ɗum ɗo ko ɗum min dawrata minen salminde ya jamme men on inni ba guesa minen e ɓaawa makko kanko inno rewɓe gambiya immo liggo minen kadi min immike minen jokki golle ɗen saabu kanko inni ko yen remo joni noon hiɗen remude hiɗen wakkili ha moƴƴi ɗen jokki golle men ɗen ha moƴƴi golle ɗen no yaarde no foti yaarde ni ewo ko buyo wakkili minen kadi min yeddani konngol makko ngal kaw tippi o min tippay kañum yaya no wakkirole ni rewɓe ɓen yo ɓeydu ɗum wona nafa rewɓe ɓen wona e nafa leydi ndin saabu leydi ndin si moƴƴi ko enen fof moƴƴani si boni haray ko enen fof bonnan ko ɗum noon waɗi kaspawa on foti ittude mo e leydi ndin min fala mo e wuli e wuli e dow kuoje e mo nafa e maje bintele ɓe intuyomi yokkati kan mba dow kan ko pour yaya jamme wolen mbulañin dow silam musolu be siwuli banko muso be siwuli bare bataɗa ɗen tel bulu jannet tella bataɗa mo jii kuwolti de jiyo gas pawa en batandi ɓaka kala ɗi yamuta jam fala bare ni en mako e wotode wo ɓotan kunto jang ha mbe ɗo kuwa kelala ñaaƴa ñim fango ɗanta teng gas pawa saŋolam ñin gas ye min geten mbaɓe e ɗo kulal nu ha wutuga samba yaya e bare ñaaƴa ɗanta teng dasfawo kam ɓatandi ɓaake mbaɗani la wala nasim ma koye no solalla fontel fana nga jiyo soto ko santoto musol ka jiyo soto ñaame mine ɓe santote ka gasfawo yus ñaame ka jiiƴama soto m fanan ɓe la filawol la mba tentula mba jayila mba koma bi mba koma sooma soo gisee man ma ñëw fii tey dafa mel ni suma yaay yi ñoo nekk fii depuis day one man bi ma juddoo ba tey dama xam suma yaay si garden bi si laa leen so looloo tam man tamit ma ne balaa def dara wala balaa maay dem liggéey comme que liggéey bi moom pour président Jammeh la te ku nekk Gambia gis nga président Jammeh lu fi def te booy ñun xam nañ ne yu si moom dégg dégg mu suñ gannaaw mu ñu jàppale so balaa maa toog si kër bi man xaaral ma ñëw man ma def si suma waala bi ma dimbale suma yaay yi pour réew mi dem si kanam comme que affaire si nekkul ne dañoo wax ne Yaya Jammeh rek moo ko moom waaye dama xam ne moom jigéen ñi ñooy nekk di wax ne Yaya Jammeh waaye pour Yaya Jammeh lu mu fi nekk pour réew mi la te moom dafa bëgg a mi dem kanam te moo xam lu wax ne moom kenn du ko a def foog ñu jóg ñu dimbale ko so ne xaaral ma ñëw tey man def si suma waala pour réew mi dem kanam ma jàppale jigéen ñi suma yaay yi di loolu li fi nii mi dem kanam réew mi ma mën a dem si suma jigéen ñi Banjul dañ dañ nekk ñoo xam ne dañ bugal liggéey dañ mun a liggéey te dañ pare pour liggéey wante leena tamit mu ñu sonal fii nii mooy affaire yi ndox ndox bi dafa sonal nañu torop because every month luñ dee spend si ndox dafa bari torop every month dinañ spend about thirty thousand pour cash power su fekkoon ne amoon nañ moo solar panel fii nii loolu dinañu jënaa dimbali mu wàññi luñ dee spend si cash power lii gars yi dañ kontaan rek ñu wakilu ne xaaral ñu liggéeyal président bi cause moom lu ñu defar mënuñ koo fay si kontaan boobu gars yi ak président seen président garden bi ku sawar ku lii sawar si liggéey mu mobilise liyaam bi jigéen naa pour ñu béyal président tool bi soo tey dañ kontaan trop kon ka béy nañ tool bi si jaama ñu xabes ko si jaama di ko yónnee si jaama kon loolu alhamdulilah bu baax la ñu ngi gërëm président bi ñu wax ko ne gestuñu si affaire yi ndox bi mu dimbale ñu si ndox bi ndox bi moom sonal nañu torop folofolen sum kuyaade bi jaamam ab nderi ngombo nderi mbañu ni ndingi sumba bindu batus nubi saba yaador si yaya jemmi so ba fongtu kon mbama so gbal alama bagani gidi mbaya makolli af mbooti ma ligirni bama abena min mbiyata be diisma kendis na bidis na ne ba ma fana ka fundan no ba bicha ma fana ka fundan ma bidin te dum banyi ne ding aya jeme gyat ma aya te ne geng ba bita atak dimbaya nang payo atak na minyang mo bindu batus ba fana ya nang gagadin ba gerde manang ade nan ba de ni ma de ni var kya de ni chosan na de nan ba wi anang nang gyat ya samba ya te ya te ba fana takat ma par mbot ma kan ba ma de ba bon kantu kutma nganyana kaspa gilin jemme ngapm tendi bina bin mbot ma ligir kadi sa samba botin ni bama tetin ka bayatan ma dub so so ma bayatan na bi tabi ifan nag lon mat nyan ak jola ma yega jola babu kak bebi cha lon mat na ba da nga wel at nda kaspa we fan ba bondan san ma de abondan san ma yaya jeme ban summa te sangala ma madan mu nderima pojima amada finuma ndeli fom ten fim ci sangal ma dang ma fi site sawo arno be ba fana ka fim tan ma jalma jaden nder mo mutinga ba fana ka tafim tan ale